de, nous, de résister. Et c'est cela qu'on va faire, la résistance pacifique. en tout cas, nous interpellons la communauté internationale pour voir un peu euh, le chaos que Macky Sall veut installer dans ce pays-là. Euh, nous interpellons également les organisations de droits de l'homme euh, par rapport à la situation. Mais dans tous les cas, Yehu Askanui prendra ses responsabilités. Euh, le peuple prendra également ses, ses, responsabilités et la jeunesse sera au devant. Et je crois qu'aujourd'hui, Macky Sall, s'il a accédé au pouvoir, c'est euh, parce qu'il y a la démocratie. Et on n'accepterait pas qu'aujourd'hui Macky Sall mette cette démocratie-là à genoux et vouloir installer ici une dictature qui ne dit pas son nom. Merci euh, euh, aussi doon exprimé wu ci interdiction d'accès bi nga xam ne ni teg nañ ko Déthié fal mi nga xam ne nii après bu mu jógee tribunal dafa bëggoon dugg ci euh, siège am ñu ne ko du ci dal donc ñu jéem a am peut-être la réaction peut-être de monsieur Youm bonjour ça va vous êtes en direct sur Sénégal 7. mais euh, ils m'ont, ils m'ont interviewé tout à l'heure. en direct avant c'était pas le direct maintenant on est en direct si possible quelques mots. y y a d'autres ah. bon <laughs> donc yan kàddu ngay sànni ginnaaw bi ah, de toute façon comme ni ñu ko waxee sànq c'est c'est de la dictature euh, bi ñuy génn ci suba lañ leen gis mais xamuñu woon ne loolu moo leen fi andi puisque bi ñuy dem la ñuy daje ak ñoom ñuy ñëw bon déjà bi ñuy génn amoon na lu mat quatre gendarmes yu taxawoon bi ñu demee euh, la ñu euh, placé seen fourgonnette pour empêcher ñu dugg ci siège bi bi ñu ñëwee léegi laaj nañu leen ndax dañu am euh, une décision de justice mais ki fi nekk je pense c'est un capitaine moom nee na daal il a reçu des instructions nangu ñu wax instruction yi ci kan la ko jotee il a reçu des instructions daal du ñu bàyyi ñu dugg bon ñun nag am nañu point de presse puisque li xew tey tribunal yi ñëpp gis ngeen ko Euh, am nañu point de presse tout à l'heure à 17h donc loolu moo waraloon tey ñu waroon ñëw chez Déthié pour euh, pour def ce ce point de presse mais dans tous les cas le point de presse est maintenu c'est dans d'ici quelques minutes mais danañ ko def quel que soit alpha mais daal li ñu mën a jàpp mooy xam leen ne Sénégal nekkatuñ dans un état de droit parce que euh, siège u Déthié Fall du parti PRP c'est un c'est un domaine privé Euh, amul lu war a mën a tax tey gendarmerie ayi ñu dugg ci siège bi amul lu war a mën a tax euh, amul lu ñu fa def lu war a tax ñu ayi ñu dugg ci siège bi c'est juste parce que c'est un régime boo xamante ne nii euh, dañu jaaxle Yewwi Askan Wi daf leen tiital donc ñu jaar jàpp ni xëy na bu ñu aayee accès bi ci siège yu Déthié Fall Yewwi Askan Wi dootul am fu mu defee ay réunion wala fu mu defee point de presse mais ñoo leen di wax rek ne leen siège pur mu ngi nekk à côté donc pour pour dajee def réunion wala pour pour dajee def un point de presse du fu ñu ko defee mooy ñàkk waaye balaa ñu fiy jógee dinañu xam lan moo tax euh, lan moo motiver euh, interdiction bi ñu euh, bi ñu def nii pour ñu dugg ci siège Déthié Fall voilà donc daal loolu laa amoon lu ma leen di wax lu jëm ci interdiction bi nga xam ne nii te jaay doole la ah du dara jaay doole la capitaine bi c'est un jeune boo xam ne nii euh, kàddu bu muy wax rek danaan dama jot instruction dama jot instruction dama jot instruction dafa jot instruction donc instruction bu ko jotee ñoom comme euh, malheureusement j'ai pas l'impression que danañu xalaat ci euh, yenn instruction yi leen di jox mais ñoom ci seen bopp war nañu xam ne même su fekkee ne ay militaire lañu instruction boo xam ne nii jubul basé wul ci ci loi instruction bu illégale la ñoom waruñ ko appliquer suñ ko appliquer yoon mun na dal ci seen kaw donc loolu nekk na loo xam ne nii xëy na ñoom xamuñu ko waaye euh, nañu xam ne euh, lii fi am dana changé te bu changé yi yëpp dinañ ci ñëwaat parce que euh, Sénégal dëkk la boo xam ne nii mënuñu permettre ku nekk def lu la neex état bi mënu fi nekk fi ñuy wax ak ñoom ñu ngi dégg ci seen tokki kii ñuy wax naan Mame Mbaye Niang il est bien arrivé waaye léegi Mame Mbaye la ñuy sécuriser parce que lan la ministre la mais il est ministre parce que ñun ñoo ko jox li mu yor ñun la fi nekkal léegi ñun ñi nga xam ne nii ñun ñoo ko jox li mu yor ñun la fi nekkal ñun kenn du ñu protéger ñaam sécurité Mame Mbaye ñaam moo ëpp solo que ñun suñu ay sécurité donc loolu daal na Sénégal yëpp xam ne euh, jaay doole moo fi am te loolu nag Sénégal yi rek ñoo ko mën fi jëlee du Yewwi Askan Wi du beneen parti politique wala beneen coalition politique mais sénégal sénégalais ci seen bopp ñoo ko fi war a mën jëlee voilà ñoo par boobu parti taxaw ni dafay def réunion avec d'autres partis légalement constitués président Macky Sall taxaw ni boobu réunion du fa am ñu gis ni tey ci suba bëgg naa dem tribunal ñu tere ma dugg tribunal ba pare gazé ma ak ñi ma àndaloo ci ngoor gi ma ñëw ci réunion euh, des leaders di Yewwi Askan Wi ñu tere leader yëpp ñu dugg ci domicile privé boo xam ni nit moo ko moomul boppam kon tey ñu gis ni président Macky Sall démb dafa tere Ousmane ko mu circuler ni ko ko constitution mayee tey ñu gis ni le droit de réunion di droit boo xam ne constitution bi moo ko reconnaître les partis politiques président Macky Sall taxaw bëgguñu ko tere mooy ni kon moom dafa tànn ni. de fermer ils ont reçu a man daal ce que je souhaite ce que je souhaite yow nga dem ñi ci des toog yow nga dem ñi ci des toog yow yaa ngi nii maa la jàngal ko nii gënoon li nga ci am nag aw demal ñi ci des. voilà kon dañuy. bu ñu kenn topp